moon euh, mars 2021 juin mi ngi commencé campagne et nous l'avions dit nous sommes dans les rues aujourd'hui pour démarrer notre campagne après ici nous allons sillonner d'autres de la ville et nous allons également sillonner le, Sénégal partout où les militants les sympathisants nous attendent image bi ñuy gis honoré wul Sénégal ndaxte lii ko crise bi mu créé crise bi nga xam ni moom moo ko créé boppam mais ñëpp tey d'accord na ni campagne électorale war na tàmbali et tey candidat yu ñu doon du vingt légitimité bi ñu am pour def campagne conseil constitutionnel moo ñu ko jox comme moom ni ko conseil constitutionnel joxe légitimité mu doon président de la république donc lu la conseil octroyé ñu nangul la ko fexeel ba bu ko octroyé ñeneen nga nangul leen ko moo tax ñu génn def suñu campagne on va poursuivre ça dans les autres acteurs de la ville. mais par rapport ak assemblée nationale lan lañ mën a jàpp si wala moom war a mën a xew. Assemblée nationale. mais que tout simplement lépp lu ñuy def du yoon donc on va poursuivre la tournée on l'avait dit que daan fi yow tey ñëw nañu dañuy continuer tournée un peu partout et après la suite parce que déjà euh, président de la République ce qui est décidé mooy la présidentielle mais la suite on va se concerter tout à l'heure bu ñu paree tey daanu gisee concerter waat on l'a fait hier pour poursuivre bi mu toll bi mu jëlee réew mi ak léegi obstacle fi jaar yëpp amul benn boo xamante ni taxaw nañu assemblée nationale mais dinañ yëkkati commission d'enquête enquête parlementaire pour xeex li ni mel. mosu fi am dossier ArcelorMittal fii la jaar amul commission d'enquête parlementaire barki de mondial gestion Covid 19 fii la jaar Africa euh, Franco Tourist ak lépp lu scandale wax ni jaar na fi moo xam côté financière wala côté côté domaine fi euh, éducation ak lu mën a doon lépp. am dara loo xamante ni sénégalais yi joxe nañ ko ci kanamu mi yi joxe nañ ko ci kanam bu baax bu mën a gagné opposition sénégalaise xam na ni dem élection moo tey les patriotes mi mu ne day reporté élection yi loolu lañ dul nangu lépp lu mën a am nag dinañ ko def dinañ dem jusqu'au bout le combat c'est notre ta démarré merci beaucoup mi ngi noonu mu doon Cheikh voilà gis ngeen ki nga xam ni moom mooy Cheikh Omar Sy bokk ci parti bi nga xam ni ah, moom mooy euh, parti doyen Habib Sy actuellement gis ngeen euh, mbeddum Ndakaaru bi alors alors sëñ bi nga avancé un peu nga avancé un peu uh-huh, allez-y ma ne sama waa ji bu fi newoon ba léegi waxatuñ ko président Ousmane Sonko uh-huh. ndax li ñu fi gis leader yi ci ëpp ci télé yi la nekk ak rajo yi di wax uh-huh. mais du ñu wàcc mukk fekk si population bi ci li nga xamante ne moom la ñu bëgg lii moo tax président Ousmane Sonko sénégalais yi jox ko bopp bëgg ko ndax lépp lu muy woote moom moo ci jiitu tey lu ñu gis fii mooy sénégalais yi ñoo génn di dénoncer li nga xamante ne ñëpp xam nañ ne du dëgg du yoon ndax mu ñu dem ba élection yi war a nekk tey ci guddi wala tey jii ñu ñu ñu génn ay décret di wax ne ah, aj nañu élection yi ci loo xamante ne loi waxu ko dara waxu ko ndax lan xam nañu ne président Bassirou Diomaye Faye bu demee élection balaa midi élection yi jeex ñoom depuis ñu nekk ci parrainage bi ñoom ñu ngi def seen ay serment pour xam ne élection yi du am loolu mooy dëgg ñoom li ñu li li xew nii yëpp programmé woon nañ mais nag lii nekkatul xeexu opposition wala xeexu kenn xeexu xeexu population bi la population bi ci boppam ñoom seen destin moo war a nekk seen loxo ñu war a xam ne réew mi lu ñu masul nangul Macky Sall lu ñu masul nangu président Abdoulaye Wade mas ñu ko nangal président Abdou Diouf président Senghor duñ ko nangul président Macky Sall loolu mooy dëgg ndax mënuñu nangu ñu ni dañuy reporter élection yoo xamante ne six mois lañ koy yóbbu te ku ne xam na ni mois de août day tolloog ah, taw bi ñëw bu taw bi ñëwetee ñu ni nawet kenn mënu ci def campagne électorale kenn mënu ci def élection ñu yë ñu reporter yi ko loolu nag lañ dul nangu élection yi dañ koy def ci date biñ ko wax muy vingt cinq février deux mille vingt quatre loolu mooy dëgg sénégalais yi lii nekkul loo xamante ne dañ ko war a xeex fii dakaar wala duñ ko xeex Pikine wala duñ ko xeex parcelle fépp lañ ko war a xeex xeex bii suñu droit la suñu devoir la ndax ñun ñooy sénégalais yi te majeure partie bi ànduñu ci li président Macky bëgg a def même ñi mu àndal ci Benno Bokk Yaakaar ci APR ànduñu ci ndax ñu ngi gis ay démission kon dafa jot sëkk sénégalais yi xam ne am na loo xamante ne ñoo ko moom muy suñu réew lu ñu ci bëggul warul am waruñu toog seetaan loo xamante ne à chaque fois ñu andil ñu lu bees te gis nañu ne PDS dafa ànd ak ki nga ñi nga xamante ne ñoom ñooy benn Bokk Yaakaar ngir xeex élection yi du am te xeex bi ñu koy xeex teguñu ko fenn ndax li nga xamante ne la ñuy wax comme quoi que ni dañoo am ñu ñu corrompe ba léegi génnewuñu benn firnde te loi firnde la soxla ndax yu mel nii jaaroon na fi Sénégalais yi dañoo dañoo gaaw a fàtte maa ngi leen di fàttali vidéo Adji Sarr président Ousmane Sonko jaaroon na fi ëmb jaaroon na fi ñu tegoon ko ci sunu nopp yi ak sunu bët yi ba ñu jàpp ne am na te ba tey ji kenn gisu ko kon buñ ñu ñëwatee waxtu ñu dañoo corrompre ay ay magistrat te indiwuñu benn firnde ñun loolu ñuy wax gëmuñu ko dañoo bëggoon am fu ñu jaar pour mën a reporter élection yi te yoon moom firnde la soxla da ngay indi teg ci taabal ji waaye yaakaar naa yoon du ci dox. ana lan ngay xaar si député yi war a voté loi bi naka suba. député yi moom euh, ndax tey député yi amul lu may xaar ci ñoom ndax majorité bi euh, ñoom la ndax gis nañu PDS ñu ànd ak ñoom. kon yaakaar bi day jàll. loi bi day jàll ndax député yi nekkuñu député wu peuple. député wu parti lañu. gis nañu seen ay déclaration seen ay wax seen i manipulation kon xam nañ ne loi bi day jàll ndax ñoom ci seen biir. bëgguñu élection am ku ci nekk rek yaa ngi défendre say intérêt personnel. jërëjëf jox ñëpp rendez-vous suba assemblée nationale. jox ñëpp suba rendez-vous assemblée nationale. donc mi ngi noonu rendez-vous bi lenn la suba fële ci assemblée nationale. yow yaa war a dox. non yow yaa war a dox. man man man yaa war a dox ah. alors ñu avancé waat tuuti si kanam. Euh, jéem a jëlaat quelques réactions gis ngeen sénégalais yi moom daanaka yëf yi lenn la yëgi ci euh, yëgi ci euh, ay xeer teg. nañ avancé si kanam nañ avancé si kanam. nañ avancé si kanam. Euh, ñu jéem a ñu jéem a avancer waat peu euh, parce que euh, situation moom fii vraiment comme ni koy waxee rek cin buy baax la amul fenn foo xam ne mi ngi fay sedd quatre coins yëpp roq yeeg roqaat yi population bi génn nañu di lancer ay xeer waaye lépp loo xam ne tey jii romb nañ ko ñu ngi koy génnee teg ko ci kaw tale bi taal ko bu mu jeex tàkk gis ngeen li nga xam ne dañ ko romb léegi même pas cinq minutes. Euh, boy na baraaf jeex tak donc euh, moom président de la république ak ñi nga xam ni euh, ñoom ñoo di autorités yi vraiment war nañu génn a jël seen responsabilité parce que situation bi nii la commencé tàmbale deux mille deux mille deux mille vingt et un ba gis nga fu mu mujjee lu toll ci seize personnes ñoom ñoo si daal di ñàkk seen bakkan ah, ñu jóge foofu ñëwaat ci li nga xam ni moom mooy moom mooy juin Euh, deux mille deux mille vingt trois même situation aussi moom moo si amaat ah, donc li ñuy bay bayal nii di ko bàyyi euh, muy sedd wala kenn ku nekk toog sa kër ah, naan lii intéressé ma yëfum politique la amaan ëllëg di nga rendre compte ñi nga xam ni ah, ñoom ñooy euh, sa say njaboot tey mbir mi lu tax mu mu mu mu doy waar. mooy jigéen ñi nga xam ni à chaque fois ak ñoom lañ daan gis si manifestation ñuy toog seen kër maire yi nga xam ni manifestation buy am ñoom ñooy toog seen kër paa yi nga xam ni manifestation bu daan am seen kër naan toog tey ñoom ñoo génn di génnee li nga xam ni moo di ay pneu di génnee li nga xam ni moo di ay dénk di taal pour war ni carrément kii di président Macky Sall lii mu nekkee si euh, cinq ans yi nga xam ni moom a mujjee euh, dëppoowul benn yoon ak li nga xam ni euh, moom moo di moom moo di yoon donc moom président Macky Sall il n'a qu'à prendre ses responsabilités balaa béy di way mbuus ndax démb def na déclaration dafa fas yéene Euh, annulé élection yi nga xam ni euh, daanaka candidat yi ñoom jàpp na ni dara soppeeku ci ndax dégg ngeen président Déthié Fall kaddu yi nga xam ni yëkkati na ko léegi léegi honorable euh, Thierno Alassane Sall moom aussi nekk candidat kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko ñaaw lu baax baax li nu mel di woo Sénégalais yi pour nu wàcc ci terrain bi war na ni kii di président Macky Sall sunu constitution kenn duñ ko kenn du ko laal comme ni ñu ko gisee woon en 2012. population wàcc génne ay a ah, bind si ah, touche pas à ma constitution donc moom président Macky Sall war na delluwaat euh, ginnaaw ca ba muy teel parce que lu ñuy gis nii wax dëgg yàlla euh, bu moytuwul rek dina dina dina compliqué alors nous avancer nous avancer un peu mbay nous avancer un parce que parce que parce que voilà ñoom lu ñu joxe euh, li nga xam ni moo di comme comme comme stratégie mooy nu avancer ci kanam jàmmaarloog ñi nga xam ni ñoo di way takkadeer yi pour firndeel leen li nga xam ni moom mooy Macky